ولا ترين فإلا أثقلت دررا في إوة المرها المن في المونات أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن صدوري عما سن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا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 ñoo ngi sant suñu boroom tabaraka wa ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndi ji bopp yi mooy nit ak jinne muy sayidul kawnayni wa tuqalayni wal fariqayni min orbin wa min ajami sallallahu alayhi wa di ñaan jàmmi yàlla ak xéewalam yàlla na yàlla jox ko ko moom alayhi salaatu wassalaam moom mboolem ay ñoñam ak ay saxaabaam ak ñaleen toppoon ak ñaleen toppoon ba suñu jond yàlla itam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ tubaa xaadimu rasuul di nuyoo nuyoob lislaam bi nga xam ne moom lañuy yàlla boole mooy nuyoo bi nga xam ne ci jàmm la tàmbalee te jeexee ci barke mooy nuyoo bi nga xam ne ëllëg buñ demee aljanna moom la ñuy nuyoo mooy tàmbalee ci barke baat yooyu ma tudd te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci seen télé réew mi TV ci seen émission bi leen baaxoo nuyoo mooy keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ko ànd seen mbokk sëñ Baara Mbàkke dimanche bu jot 22h. nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel a Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal muy jëwri di xaadimu rasul ci kaw suuf di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala gën a guddal aw fanam waaye gën ko dolli wér waaye bàyyi ko am xelam te dolli ko kattan ba mu mottali mbooleem yéene yi nga xam ne am na yéene yi liggéeyal ko lislaam suñu borom tabaraka wa taala kàttanal ko ba mu mottali ko ni mu ko bëggee insha allahu taala comme ni ko suñ bokk di faral di waxee rek nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere a cheikh Mouhamadul Muntaqa nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox a cheikh Aboubacar Sy Mansour mi nga xam ne tey yàlla dogal na moo amee xadara jataayu xadara maliki yi ci njabootuk maam Seydi Xaaji Malik Si radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatih ñoo ngi koy ñaanal moom it suñu borom sàmm ko bàyyi ko am xelam dëbb ko kàttan ba mbootali mboolem yéen yi nga xam ni am na ko ci umma islami bi waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy ziyaara Baye Cheikh Mahi Niass mi nga xam ne tey moo amee jotaay maam Cheikh Ibrahim Niass waaye Baye Cheikh Tidiane mi nga xam ne tey mooy kali kilifa kër maam Abdullahi Niass te kër Cheikh Ibrahima Niass mën a duggaat ci biir maam kër maam Abdullahi Niass ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax noonu lañ ko ñaanalee Baye Assane Seck ca Canaba noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Bikaay ca Ndiassane noonu lañ koy ñaanalee maam Thierno Basir Tall waaye noonu it lañ koy ñaanalee Khalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ba bi nga xam ne tey bis yi nga xam ne ci lañ nekk ñu ngi ci Daaka Medina Gounass moom ñoo ngi koy ziyaare bu baax baax a baax a baax te di ko ñaanal ñaan yi nga xam ne moom la maam ya daan def yàlla dogal tey mu amee jataay bi te di ko jiitee te boroom réew mi ki nga xam ne moom la yàlla dogal muy njiitum réew mi dem fa démb rek ngir fas yéene ko ànd ak ñoom julleen ñoom àjjuma démb ñoo ngi koy ziyaare bu baax a baax ak mboolem njabootu Medina Gunaas ak mboolem ak njabootam rek ñoo ngi leen di ziyaara tey ñaan ñaan yooyu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu bi barakatil quraanil aziim bi barakati cheikhil xadim waaye di beral ab nuyoo akub ziyaara kilifa gi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dogal na peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca wagg ya kilifa gi nga xam ne yàlla dogal na euh, moo nekk ci suñu kanamu liggéey bi muy alxaaji Mbagnick Diop di ko beral ay nuyoo ak ziyaara ak i ñaan fu ñu mën a toll ndax bu ñu mën a jottali benn kàddu ci lislaam ba nit mën koo dégg mën koo jariñoo euh, moom la ko ci moom la ko yàlla jaarale kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom dolli ko kàttan waaye dolli yaatal wërsëgam waaye dolli ko it ay ndam ba yéene yi nga xam ne am na ko liggéey am na ko ci euh, société bi suñu borom mottali ko mm, suñu borom dolli ko kàttan ba mottali ko incha allahu taala ni ko noonu lañ koy ñaanalee kilifa ak liggéey bi alxaaji Moustapha mi nga xam ne mooy jëwri ni liggéey bi ak mbooleem rek ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a euh, ba ci man mi ci gën a xeebu mboolem waa kër gi yëpp ñoo ngi ziyaare ñëpp seen émission keppaaru mag ñi la di amee fii ci seen télé réew mi TV seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen di àndal ci kàddu gi dimanche bu jot waaye muy feggoog alxaaji Malick Faye ci wàllu xarala gi xam yi émission keppaaru mag ñi ni ngeen ko baaxoo amee mooy day li ëpp ñu tànn kenn ci suñuy mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon lislaam ku ci mel ne alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kenn la ci yónent yi yàlla yónni woon te mooy ki ci mujj mission ba ko yàlla joxoon mu dox ca waaram ba jeexal waaye bi mu dem nag am lum ñu bàyyee am aw ñaraas ñu bàyyee mooy balligu anni walaw aaya mooy li ma yàlla yónni woon jotal bay leen ci seen waar maa ngi dem yàlla wàcce na ma waaye yéen jël leen seen wàll ngeen def li ma yàlla yónni woon bay leen ci seen waar suñu maam wala saxaaba ya taabia ya kenn ku ci nekk bay ci waar waaye suñu maam yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dogal na ñun Sénégal bu ñu jot juddoo doon ay jullit ci ñoom la ko yàlla jaarale seen émission keppaaru mag ñi suñu maam yooyu lañ fàttaliku ci seeni i jikko ci seen i jàngale waaye ci seen i mbind xam ngeen ne baaxoo nañ koo def léeg-léeg ñu indi téere boobu nga xam ne moom la ñuy wax majmuatu wasaaya wa rasaili cheikh il xadim radiallahu anhu mooy téere bi nga xam ne ay ndénkaan ak ay tomb wala ay leetar yoo xam ne a cheikhul xadim radiallahu anhu ci moom la bàyyi ko téere boobu ki nga xam ne moo ko dajale woon mooy ki nga xam ne moom lañ doon waxtaani dimanche bi wees rek mooy a cheikh abdul ahad ci bi nga xam ne am na yéene wutal alquran kër waaye dajale li sëñ Tuubaa bindu bàyyi fi ci mbind waaye dajale li nga xam ne moom la fi Sëñ Tuubaa ci ay jàngale moo ci la dajale woon téere bii joxoon ko doomam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doomi Sëriñ Chouaïbou mbokkam ma saqiiqam ma mu bindoon ko waaye mu joxe ndigal ci ne nañ tasaare téere bi téere bi fees dell ak ay njariñ indi naa ci ay tomb yu am solo waaye tey incha allahu taala foofu lañ fañ bàyyee woon fi fas yéenee sofee dénkaan bii nga xam ne moom laa tiim Seexul Xadim radiallahu anhu mi ngi ci doon dénkaani ci wàllu soxna xam ngeen ne mbokk yi fii jamono toll ci ne naqariwaayu jamono bari na ci ñoo xam ne boo ne leen lu leen teeye takk soxna dañ naan amaguma liggéey wala bu ma takkee soxna duma koy jox mu mel ni loolu crise la boo xam ne dafa mel ni société bi ñu ngi koy dund te ba léegi amaguñ ci solution benn benn sax yi nga xam ne góor góorlu woon nañ ba takk ku ci xaw a ñàkk jom tuuti bu xawee nux nuxi rek nga bàyyi looloo tax débat boo xam ne toujours mi ngi ci penc mi li ma saa katura at talaq lu tax lu tax divorce yi bari débat boo xam ne toujours mi ngi posé wu ci société bi te ba tey amaguñ réponse bi maanaam réponse bu leer buñ mën a jàpp ni lii moo ko waral ba tey amaguñ ko waaye mu mel ni buñ delluwaatee ci njàngale mag ñi rawatina a cheikhul xadim radiallahu anhu dénkaani bii may bëgg a tudd bu fekkente ni déggee nañ ko ni mu ko waxee jàpp naa ne problème boobu dana saafarawu lan la wax dani bismillahi irrahmani irrahim faalamu anni nahaytu kulla man taallaqa biya an yuhtiya imraatan an yuctiya imraatan sadaqan zaidan ala miatay dirham fi xaqi zawji lganiyi aw ala mia wa xamsi wa xamsina fi xaqi gayri lganiyi mu wax ne dama bëgg yéen yi nga xam ne yéen la ma yàlla boole booleen ma yilif leen dama leenoo bëgg a xamal ne man seexul xadim tere naa képp koo xam ne aju na ci man fa alamu anni nahaytu kulla man taallaqa biya xam nga kulla man taallaqa yi dafa bari te li ëpp ci sama mbokki murid yi nag ñoom kullu muridin bi yelu maanaam kullu yi sintu Tuubaa indi moom yu ci baree baree bari mokkal nañ ko waaye kullu muridin bi yelu yasaadu ak li kulli man ta li kulli man bi yataallaqa daa mel ne kulla man taallaqa yooyu noonu lañ gën a la ñuy gën a dégg waaye nañ ci boole kulla man taallaqa bi yéeg yi ndax dafa wax ne maa ngi xamal képp koo xam ne aju na ci man maa ngi lay xamal ne anni nahaytu ay yootiya imraatan sadaqan zaidan ala miatay dirham mooy man seexul xadiim digal na képp koo xam ne aju na ci man tere naa la nga jox jigéen can gu ëpp ñaari dërëm ci fi xaqi fi xaqi zawjil gani ci àqi koo xam ne suñu borom dogal na am nga wërsëg mooy képp koo xam ne man ngaa génne asaka man nañ koo jàppee noonu mooy koo xam ne sa wërsëg àgg na ci denc nga lu mën a génne asaka sooy joxee cam bu joxe lu ëpp ñaari dërëm ca jamono jooja ñaari dërëm yi nag danaa ko leeral ci kanam tuuti wala téeméer ak juróom bu fekkente ni koo xam ne day fortaatu la te na joxe lu toll ci téeméer ak juróom fukk mooy na joxe ñaar téeméer 1000 francs wala boog 750 su boobaa naka lañ koy xaymaa ca jamono ba muy wax ñaar téeméer téeméer yooyu yaakaar naa ne bi jamono doxee ba egsi ci jamono Cheikh Mouhamadul Fadal nee na ca jamono joojee mën nañ koo mën nañ koo def ab junni nga xam ne ci jamono Cheikh Mouhamadul Fadal 5000 francs ngay joxe kon ñu may la ñu may la soxna Cheikh Abdoulaye Lahad nii nga xam ne moo fi nekk bi mu dikkee moom daf ne léegi comme jamono soppiku na. muy jamono ay quatre-vingt quatre-vingt-huit léegi comme jamono soppiku na nañ jël ñaar téeméeri sëñ Tuubaa ya boole ci junnib Cheikh Mouhamadul Fadal dolli ci ñaari junni muy seize mille muy seize mille nga xam ne kon moom sëñ Tuubaa li mu dénkaane woon mooy ñaar téeméer yooyu tey boo ko dee xool fi nekk nii bu yàggu rek Cheikh Mouhamadul Muntaqa dajale na boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk Touba muy waa Rawdu Rayahin ak aïma yi imaam yi waxtaan ci ak ñoom ñu tënk ko ci wenn six mille maanaam ñu yóbbu ko ci juróomi junni ak ñaar téeméer nga xam ne kon sëñ Tuubaa ñaar téeméer la waxoon ñu dem ba jamono soppi ko xaalis bi amatul valeur ñaar téeméer amatul valeur bi mu amoon Cheikh Ahmad Fadal dolli ci junni muy junni ak ñaar téeméer Cheikh Abdoulaye Lahat dikk dolli ci ñaari junni mu doon 16000 biñ demee ba nga xam ne jamono toll na foo xam ne 16000 mënul dara ci la ci Cheikh Mouhamadul Mountakha diisoog borom xam-xam yi ñu tënk ko ci 26000 kon. lii mooy li nga xam ne mooy li mënta ñàkk ci ab sëy ci képp koo xam ne da ngay topp ndigalul seexul xadim radiallahu anhu te lii sëñ tubaa xaadimu rasul jàngale mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la jàngale woon dafa waxoon ne aqalluhunna muhuuran aktaruhunna baraka aktaruhunna muhuuran aqalluhunna baraka wala boog bil aks dafa wax ne sëy yi nga xam ne moo gën a néew alal juñ ca def alayhi salaatu wasalaam nee na sëy yooyu moo ëpp barke sëy yi nga xam ne moo gën a bari alal alayhi salaatu wasalaam nee na moo gën a néew barke kon sëy yi sëy ab sëy buñ ko dee takk lu alal ja gën a néew moo gën ca kay takk moo gën ci ki muy takk aqalluhunna muhuran aktharuhunna baraka loolu tax Seexul Xadiim waxoon ni digal naa képp koo xam ne aju na ci man buy joxe can ca jamono jooja bu mu romb ñaat téeméer ci ku ko man bu dee kuy taaba taaba na joxe téeméer ak fukk waaye lii la ci teg dani fa man araada al baraka wal manfaa fal yaqif ala haadayni al adadayni fa kullu man jaawasa fa sa yaalamu anna man faala ma shaa laqiya ma saa loolu boo xoolee xekma boobu indi woon na ko ci téeréem bi ñuy wax nahyu qadaa'il haaj man faala ma saa laqiya mooy soo defee lu la saa yoo defee lu la neex dajeeg lu la naqari moo tax mu teg ci ne képp koo xam ne bëgg nga barke ci sab sëy wala nga bëgg ca njariñ bul jéggi ñaari lim yi na nga taxaw ci ñaari lim yi ma wax mooy bépp murit boo xam ne ndigalul Cheikh Mouhamadul takkaay ngay diglu mooy can boo bëggee soxna ki lay may soxna la la laaj vingt-six mille bu mu ko romb taqriban bu mu ko romb saa yu xasee romb wenn six mille sëñ tubaa nee na képp koo xam ne bëgg nga sëb sëy am barke wala nga bëgg a am njariñ njariñ lu law ci sab sëy bul romb lim bii nga xam ne moom lañ tënk ne moom mooy can li bu ko rombalee can li daa am ñaar yoo xam ne nag nit ñi dañ koy jaawale te bokkuñu mooy nit ki nga xam ne dafa takk soxnaam ba mu dikk biir këram mu bëgg koo teral kooka lu mu teralee soxnaam yeeyoo na ko boroom waxkatu arab ba dafa waxoon lu am solo dafa waxoon ne jigéen de deesu ko terelee lu dul ci këru garmi góor goo xam ne garmi la moom rek ngay dem këram fekk fa jigéen joo xam ne dañ koo teral waaye nag duñ ko tooraxalee lu dul ci këru góor gu boo xam ne ab baadoola la mooy dafa wax ne garmi dëgg mooy teral jigéen waaye baadoola dong mooy tooraxal jigéen ci jamono Seydina Omar doon nañ waxtaan ci affaire comme débat bu mel ni posé woon na ci jigéen ñi liñ leen di may ci ay warugar dafa bari ba sëy naa Omar jëloon xaraar ne dañ koy wàññi génn jigéen moo jóge fële ne ko ayow ah, amiral muminin ndax àq ji ñu yàlla jox yow yaa taxaw ngir bëgg ñu koo xañ teraanga ji ñu yàlla teral ndax yaa taxaw yow ngir bëgg dindi teraanga jooju ngir bëgg a deñal teraanga jooju ñu yàlla jox kon sëñ Tuubaa bu waxee can can mooy lan mooy li nga xam ne mënta ñàkk cib sëy ab sëy dafa am ñeenti sart ba ca njëkk mooy almahal moom da ko boroom muqaddamatul izziya tuddee wala xalil sayxu xalil mooy almahal mooy bokk na ci sart yi jiitu ci sëy mooy jigéen lañuy maye te góor lañ koy may bokk yi kon ñaari góor saa yu ñu àndee dikk kenn du leen maye loolu leer na ñaari jigéen it saa yu kenn du leen maye koo xam ne xamuñu ndax góor la war a jigéen la bu dikkee di ñaan soxna dañ koy wérlu ba xam ndax moom cër yim yor ñaari cër yim dajale ban moo ciy dox bu fekkente ni bu jigéen ba mooy dox kenn du ko may soxna bu fekkente ni bu góor baay dox it manis na koo may soxna parce que loolu lañuy wax al um, ku nguni ngaana loolu la wax ku nguni ngaana mooy koo xam ne suñu borom dafa dogal mu am ñaari ñaari jumtukaay ñaari sexe kon bi ci jiitu mooy jigéen la ñuy may góor ba ca ñaareel ba mooy mooy day am kilifteef kilifteef gi nag ci jigéen gi la mbokk yi mbokk yi jigéen moom la kilifaam di maye waaye góor moo tax euh, léeg-léeg ma dégg ndeysaan sama nijaay alhaaji Alioune Sall maa ngi koy ziyaara bu baax a baax au passage muy wax ne góor bu amee ñaar fukki at ak juróom bu tollee ci takk su baayam nangoo soo sa baay nangoo takkal su nanguwu takkal su yaay nangoo takkal su nanguwu takkal soo amee takkal soo amul takkal loolu léeg-léeg nga dégg ku koy critiquer naan nit nu muy takkee te baayam àndu ci mbokk yi du sart cib sëy ci góor gi baayam ànd ci ñàkk ci ànd góor gi bu ko neexee dem ba kiri koro mu takk fa soxna te bàyyam du yëg yaayam du yëg parce que saa yu xasee mesure moom mooy kilifa boppam mën naa jël ay responsabilité ci lislaam kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne mooy lu wér mooy bi ci jiitu mooy jigéen la ñuy maye ñaareel bay mooy day am kilifteef moom jigéen gi la baayam war a may baayam ay ki jiitu nag ci kilifteef bu dee ku mas a bu dee ku mas a sëyi am doom doomam moo yor kilifteefam waaye bàyyam yoratu ko bu fi bàyyam nekkul doomam nekku fi nag ay nijaayam wala boo kilifteef ga noonu lay toppee ba ca kam bàyyale boppam ne ko yow laa jox sama kilifteef yaa may may waaye daal en tout cas day am kilifa ba ca beneen ba ca topp mooy can mooy can gi sëñ doon leeral ci waxan ji moom laa bëgg a indi moo tax ma ne daa bokk ci yi nga xam ne mënta ñàkk ci sëy beneen ba ca topp mooy ay seede mooy ñaari nit buñ toogee ne diw may ma sa doom mu ne ko may naa la ko sëy ba fasu na waaye nag kiñ may soxna balaa sañ a dem ca soxnaam daa war a woo ay seede ñu ñëw mu ne leen seede leen ne diw sàngam mii déggoo naa ak moom ci may na ma doomam mooy tax bu ca doom juddoo kenn du ci ñaaw njort ndax doomi jàllu la wala déet seede yi loolu rek moo ciy njëriñam mooy na ñëpp seede ne diw mii kat may nañ ko diw soo ëllëgee bu ñu leen gisee ñuy ànd xel du ci ñaaw bu ñu leen gisee ñu jur doom kenn xel du ci ñaaw kenn du ci bàkkaaru kon can googu sëñ Tuubaa di wax mooy li nga xam ne li mënta ñàkk la ci ab sëy mooy àq yàlla ji tabaaraka wa taala amaa nag ki takk soxnaam ba mu ñëw ci biir këram lu mu ko bëgg a terale mën na koo terale kon li sëñ Tuubaa di wax naan buñ ko romb lu mu gën a néew moo ëpp barke loolu mooy àq yàlla ja li ñuy wax can kon moo tax sëñ Tuubaa ni ku bëgg sëb sëy yàlla def ci barke waaye nanga nga taxaw ci lim yi nga xam ne moom laa tudd tama wax ko léegi bu dee fa Touba ñoom ñi ngi toll ci vingt-six mille te duñ ko romb te rombaguñ ko kon képp ku ko ëppal ki la Sëñ Touba wax ne képp koo xam ne jéggi nga lim yii ma wax na nga xam ne ku def loola neex dajeeg loola naqari loolu la fa kullu man jaawaza fa sa yaalamu anna man faala ma shaa laqiya ma saa man képp ku jéggi lii na nga xam ne ku def loola neex daje ak loola naqari daal ciy ceeg nga xam ne sëñ Tuubaa ñi mu yilif lay wax ñoom lay digal waaye ñi mu yilifut lay laabiire moo tax mu ne wa amma al mooy goro yi fala yumsiku al mar'a an zawjiha li adami tamaami sadaqiha aw yastaratu alayhi fiddatan faqat mu ne waaye it maa ngi dénk goro yi mooy ñi nga xam ne ñooy mayee soxna buñ téyee jigéen mukk ngir ñàkk ngir can nga ñàkk mat gum ñàkk mat mooy xam ngeen ne léegi la jamono neex rek kuñ tudd vingt-six mille kuñ ne woon tey boo indee vingt-six mille ñu may la jabar balaa mat fukki minute boo ko yorut it mën nga koo laaj léegi ñu yónnee la ko nga man koo ci jaa jaaruwaay yi nga man koo joxe léegi ñu may la ko léegi waaye bu njëkk can yombee wutoon noonu xam ngeen ne siiw na ci maam soxna jaaratullahi mariama mii xam ngeen ne wëy juróom wu jigéen moo ko can maye sa doom ba pare joxe lañ cay def soxna si xam ngeen ne sëy bu gën a barkeel boobu ma see su koo gis soxna jaara maam astawaalo mi nga xam ne moo koy may Maam Mor Anta Sali moo yëkkati lam koy cane jox ko Maam am Anta Sali ngir mu canal ko doomam ana goro yi lan moo tax mënuñoo roy soxna jaara ci loolu buñ royee soxna jaara ci loolu tey yaakaar naa ne duñ dem ba toll ci jamono boo xam ne dañ naan li nekk ci réew mi ci ay góor wala li nekk ci àdduna bi ci ay góor bu kenn ku ci nekk takkoon ñeenti soxna du tey dana des beneen lim boo xamante ne duñ am ay jëkkër ay borom kër kon lan moo war a am mooy kane yëf yi buñ xooloon nuñ ko war a organiser ba mu gën a yomb goro yi di comprendre xam ne ñoom dañoo yor ay doom yu góor te dañ leen di may soxna ba tax ñu gën a yolomal yëf yi su boobaa tas mi du bari te takk gi dana gën dana gën a dolli ko kon moo tax sëñ Tuubaa wax ne maa ngi dénk bépp goro boo xamante ni dangaa ngaa maye sa doom su fekkente ni boroom kër ba dafa yorut lu mat ba tax mu dikk ne ah man de bëgg naa koo jox can gu mat waaye nag jamono dafa neexut moo tax damaa avance lii ci can ga bu leen téye soxnaam loolu la sëñ Tuubaa wax nee na bu dee dikk na ba jox leen dara ne leen lii avance naa ko ci soxna si avance naa ko ci can gi ngir yàlla bu leen téye soxnaam. fala yumsiku almara an zawjiha li adami tamaami sadaqiha bu leen ko téye mukk ngir can nga ñàkk mat gam ñàkk mat téye sa doom ne liñ ma jox bu ma tut du ma joxe sama doom sëñ Tuubaa nee na loolu maa ngi leen koy tereloo day xañee barke waaye day xañee jariñ cib sëy mu teg ci ne wala sax nga sart ki ngay may sa doom ne can gi daal xaalis doom nga ma ko mën a jox loo ma ko mën a jox lu dul xaalis bëgguma loola it nee na mi ngi leen koy tere ndax alayhi salaatu wassalaam takk na ab sëy ci faatiha sëriñ Pape malik si maa ngi koy ñaanal yàlla dolli ko yërmani ak njëggal soxnaam si nga xam ne moo noppalu bu yàggut maa ngi koy ñaanal moom it suñu borom tabaraka wa taala dëppalee seen kër yi ci aljanna man déglu naa ci waxam mu wax ne soxna soo soosi keroog bi mu fa yónnee ne dafa bëgg ñu may ko ko ñu nangul ko ko mu yónnee ay teraanga yónnee jox leen ko nee na teraanga yi saa yu demee dañ ko koy day dellu siwaat ñu ne ko sa faatixa rek doy nañ waaw sëñ bi xoolal xoolal xoolal lu baax lu lu ñu gën a rafetee te alayhi salaatu wasalaam noonu la defoon may na ab sëy ci faatixa diw nit dikk na ne ko damaa bëgg diw damaa bëgg ñu may ma mu ne ko déggoo ngeen mu ne ko waaw mu ne ko kilifaam ànd na ci mu ne ko waaw mu ne am nga can mu ne ko déedéet alayhi salaatu wasalaam jaaroo alliance bi mu takkoon moom la tekki jox ko ko ne ko am may ko can ko ko kon ndekete can manees na koo def ci lu dul xaalis looloo tax sëñ Tuubaa ci leeral gi muy leeral moo tax mu wax ne bu mu jàpp rek moom bor goro bi bu mu jàpp mukk ne mu ko war a jox xaalis kese la war a doon kon jigéen manees na koo cane ci lu dul xaalis loolu mooy lan lu mu bëgg a wax mu ne su boobaa naka lay demee mooy bu fekkente ni da koo bëgg a cane ci lu dul xaalis lu mel ne da koo bëgg a jox am xar wala da koo bëgg a jox aw fas wala da koo bëgg a jox oto wala da koo bëgg jox loo xam ne dana tolloo xaymay dana tolloo xaymay can ga su boobaa nee na boroom kër bi bu mu ko xayma mbokki jigéen gi buñ ko xayma nañ woo ay jàmbur yoo xam ne seen yoon nekku ci su dikkee ñu ne leen ah xaymaal leen bu fekkente ne ab oto la bëgg a joxe walla kër walla xar wala bëy wala nag wala lu mën a doon su boobaa nañ woo ab jàmbur boo xam ne yoonam nekku ci su dikkee ñu ne ko xaymaal ñu lii loo jàpp ne moom la man a jar comme ni ñu koy defee ci miraas xam ngeen ne miraas nit ki bu fi jógee bu ñu koy miraas bu dee defee bàyyi kër ñu bëgg a jaay kër gi dañuy woo ñaari ñetti ji ay jàmbur ñu dikk ñu def leen par commission ne leen dem leen fee ngeen diisoo li ngeen jàpp ne kër gi mën na koo jar ngeen bindi ko ci kayit andi suñ ko defee lu man ñetti commission ñoom ñu indi kee indi 2 millions kee indi 5 millions kee indi 3 millions su boobaa dañuy xool bi ci gën a digg doomu xam nga ne 2 suufee na 5 bari na waaye 3 nekk na ci digg bi ñu jël 3 millions su boobaa bu fekkente ni ki kiy takk soxla dafa bëgg a joxe can lu dul xaalis su boobaa dañuy woo ay jàmbur yu maandu ñu xayma ko ba ne nangam kat nangam lañ jàpp ne moom la war a jar su boobaa a ah, ñu sañ koo ñu xayma ko bu dee tolloo ak can la wala mu ëpp ko te moom mu man koo joxe ci xol bu sedd guy su boobaa ñu xayma loola muy can ga kon daal Sëñ Tuubaa mi ngi dénkaani ni goro yi buñ téye soxna jàmbur ngir can gu ñàkk a mat waaye it nag buñ sart ne can gi faawu xaalis rek lay doon waaye it nag bu dee da koo bëgg a cane lu dul xaalis nañ woo ay jàmbur yu maandu ñoom ñu xaymaa leen ko waaye jëkkër ji sañu koo xayma soxna si sañu koo xayma ay mbokkamit sañu koo xayma mu teg ci ne wa laysa li zawji an yetazawaja imraatan uxra walaw raabia illa bada dafcihi alsadaq alladi qabalahu mu ne nag waaye nag góor saa yu xasee takk soxna ba jox ko can gu mat fa saasa bu ko neexee takkaat beneen soxna donte ab ñeenteel la ba baa muy man ñeent mooy kon waaye nag takk soxna commencé koo jox can kon te can ga matagul ngay takkaat seneen soxna la ba ga tere ndeke dangaa takk soxna si waxataan ba juboo ne nangam laa koy canee waaye kat jamono daa neexut maa ci avance lii nga joxe avance ñu jox la sa soxna nga ñu xëy xëy dégg lañu ne takkaat nga seneen soxna déedéet da ngay mottali can gi ba mu mat nga door a takkaat keneen ba baa muy man ñeenti soxna ñeenti soxna yi nag nit ki saa yi ko xasee am fu mu bëggati soxna nañ ko dàq ndax keneen kum mën a takkaat kooka du soxna doom ju ca juddoo it dee su ko jàppee doom ju jaar ci charia su euh, su bu dee ñu maandu ñoo daje ngir di ko miiraas si doom yooyu duñ doon soxna sa du doon du doom ya duñ doon ndax képp ku takk ginnaaw am ñeenteel du soxna ci sharia nag lay wax kon dénkaani baa nguugu mu dénkaani bu fees del ak ay njariñ boo xam ne jamono laaj na ko ci ñu di ko décortiquer waaye it nag ndax alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne saa yu leen ab jullit dikkalee ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa sawijuuhu wa illa takun fitnatun fi ardi wa fasaadun kabir dafa waxoon ne saa yu leen ab jullit dikkalee koo xam ne gërëm ngeen diineem waaye gërëm ngeen jikkoom nga xam ne xoolal alayhi salaatu wasalaam ca hadis ba jiitu booba lam ca waxoon ba tey moom lay firndeel am na xadisam boo xam ne daf cee waxoon ne alayhi salaatu wasalaam daf cee waxoon ne su ngeen di tànn soxna na ngeen ko tànn ngir ñeent ngir ab taaram ngir aw askanam ab taaram aw askanam ak jikkoom ak diineem ñeent yi la waxoon waaye bu mujj dafa wax ni fasvar bizaati bizaati diin taribat yadaak tànnal boroom diine ndax kat lu àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg moom day yem ci say loxo boroom diine lu àdduna yàgg yàgg yow yaa ko yilif du am alal ba tax dootoo ko yilifati du bokk ci askan wu ba tax dootoo ko yilifati du du soppi jikko mukk tànnal boroom diine ndax boroom diine moom jikkam du jikkoom du soppi ko laa yam sarif moo tax mu ne bu leen ab jullit dikkalee koo xam ne gërëm ngeen diineem gërëm jikkoom nangeen ko may seen doom waaye xoolal alayhi salaatu wasalaam lam ca teg moo ñu dal tey wa illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ñun nag léegi dangay dikk bëgg sama do bëgg doom yi diw sàngam mu indi wàllu waaso kii géer la kii géwél la ñoom ñaar waruñoo sëy kii séeréer la kii joolaa la waruñoo sëy kii nàngam la kii nàngam la kii nàngam la te mbokk yi ci lislaam loolu amut wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu waaye nag inna akramakum inda allahi atqaakum bu dee ci wàllu sëy alayhi salaatu wasalaam lam waxoon waxutoon ne géer ak géwél buñ sëy waxutoon ne joolaak joolaak mànninke buñ sëy waxutoon ne séeréer ak pël buñ sëy déedéet dafa wax ne ab jullit saa di radikalee boo gërëmee diineem gërëm jikkoom ak xeet wu mën a bokk may ko sa doom ndax wa illaa tafaluhu jam waxoon moo ñu dal tey mooy lu ñuy dund tey affaire waaso la indi waaye dañoo egg ci waxuma affaire waaso waaye dañoo indi affaire matérialisme boo dikkee am na ci ñoo xam ne boo dikkee di ñaan seen doom li ñu lay njëkk a laaj mooy looy liggéey looy liggéey ndax ab liggéey ndax ab sëy sart la ci nga xam ki ngay may sa doom lu muy liggéey déedéet mbokk mi ndax nit mën naa takk mën naa am liggéey bu baax takk soxna tey suba mu ñàkk liggéey ba su boobaa dañuy gaafal soxna si mu ànd ak soxna si di jug ak daanu ba xëy xëy suñu borom jox leen lu ëpp lañ yoroon su boobaa kon walla bokk nga gis ñaar ñu bokk ndey ak baay nga gis kii am kii man am alal lool kee yorul dara ñu ne kii am alal ñu ne ko sa liggéeyum ndey la xanaa kon ñoom seen yaay daal liggéey samedi noppalu dimanche mbokk yi yooyu c'est faux li fi nekk mooy suñ borom tabaraka wa taala am na ci yoo xam ne moo ko yoral boppam tam moo koy séddale naam liggéeyu ndey am na waxuma ne amut de waaye nag mbokk yi buñ ko natt ci alal nag ku bari ay kër bari ay oto di dimbali sa bokk ñu ne la sa yaayu ko liggéey waa léegi sa mag ji nga bokkal ndey ak baay wala sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay te yow ci sa bopp yaa koy dimbali buñ ne la sa ndeyee ko liggéey mooy xaslu nañ sa ndey ndax sa yaay dafa liggéey samedi noppalu dimanche xanaa yow samedi ji nga juddu xanaa kon da koo liggéeyal léegi noppalu dimanche ji sa rakk judd mbokk yi nañu nañuy moytu yooyu du lislaam wa illaa tafaluhu takun fitnatun fil ardi bu ngeen ko defut fitna ju réy lay doon ci kaw suuf tey moom la ñu dund zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum baada alladi amilu baada alladi amilu alquran nee na ak yàqute feeñ na ci géej géej jéeri ji ñu ne ko lu ko sabab mu ne yéen ko def de bi maa kasabat ay dinnaas yéen nit ñi yéen ko fàggu seen fàggu teefil bopp la moo yéen ko liggéey moo tax man yàlla ma bëgg leenoo mosal as tuut ci li ngeen jëf ci àdduna waaye la ca des nag ëllëg yowmal qiyaam laa koy xaare mooy li waay def ci àdduna dama ko ciy mosal tuuti mu xam ne lam defoon bu baaxee mu xam bu baaxul mu xam waaye nag mooy li olof yi di wax ak ñamali ak ñamali mooy dama lay mosal fii tuuti rek waaye la am solo te am solo ëllëg yawmal xiyaamatul akbar la kon mbokk yi yooyu nañ ci bàyyi xel di xaw a xam ne du lislaam loolu benn dénkaani la ci yi nga xam ne Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul andi woon na ko dénkaani bi mu ci teg mooy dafa wax ne ku bëgg borom bi tabaaraka wa taala jox la li nga bëgg ci tey ak ëllëg maanaam ku bëgg yàlla jox la li nga bëgg tey ak del topp ndigali yàlla mbokk yi yiw yépp mi ngi tegu ci buntub topp ndigalul yàlla tabaraka wa taala wa man yattaqi llaha mbokk yi yajcal lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib waaye wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbu alquran nee na su ngeen borom bi tabaraka wa taala yàlla defar seeni mbir lu ngeen dugg mu leen ci mooy léeg-léeg ngeen dugg ci mbir mu xat lool ngeen naan sama liggéeyum ndey na ma wàllu mbokk naan naam liggéeyum ndey mën na faa am solo de waaye borom bi tabaraka wa taala soo jëlee sa lépp jox ko ko mu teel sa lépp saa yoone ko yàlla ak diw mu bàyyi la ak diw moom yàlla taxaw ne bàyyi la ak diw moom kon mbokk yi nañ bàyyi xel ci ni nit ki lim bëgg àdduna ak àllaaxira na koy sàkkoo ci topp yàlla lim ragal àdduna na koy moytoo ci topp yàlla moo tax mu tekki ne waman araada an yamtasila amrahu fal yanwi wan niya mooy na yéene waaye wan niyatu taquudu ila imtisaali maanaam yéene day wommat nit ki jëmee ko ci topp ndigalul borom bi tabaraka wa taala moo tax moo tax mu tekki ne ku bëgg yàlla doy la ci sa lépp ci àdduna ak ci mboolem looy ragal mu fegal la ko da ngay wattandiku mboolem li yàlla di tere moom la dénkoon sëñ bu so ca tombam yooyu dafa tomboon ay tomb ne ko Mbàkke mu ne waa mu ne ko yaa ngi nii ci digg bi li nga bëgg a ngi nii li ngay bañ a ngi nii li yàlla diglee ngi nii li yàlla teree soo toppee li yàlla digli boolem li nga bëgg li nekk sa wetu dajoor lépp dalay fekk soo bàyyee li yàlla digle topp li yàlla tere mboolem li ngay daw mi ngi ci sa càmmooñ dalay fekk si lii la bindoon tomb yii la tombaloon sëñ Mbàkke bu sa digaloon ko ko kon li am solo te am solo mooy li sëñ Tuubaa doon dénkaani mooy nit ki day gëm yàlla tabaaraka wa taala waaye nag yéene aw yiw am yéene tënku ci ay ndigalam waaye am yéene bàyyi ay tereem mu teg ci beneen dénkaani bu am solo boo xam ne day yonent bi aleyhi salaatu wa salaam la doon wane dafa wax ne arsala nnaasu arsala rabbu nnaasi xayra nnaasi ila nnaasi allahu akbar xoolal tëggin wi tëggin wi nim balaaxa waaye nim bari ay njëriñ arsala rabbu naasi xayra naasi ila naasi dafa wax ne boroom nit ñi moo yónni ki gën ci ñi ci nit ñi gën ci nit ñi la boroom nit ñi yónni mu war koo doxali ab mission ci nit ñi rabbu naasi mooy ki boroom nit ki gën ci nit ñi waaye ilan naasi nag mu andi lam andi jëmee ko ci nit ñi daan ne wasalaam nga xam ne gis nga léeg-léeg ma wax ne wax su gàttee te bari njariñ sëñ Tuubaa la waaye wax ju bari te laa làmboo benn njariñ te lépp di bakkan képp ko la wax ne la sëñ Tuubaa ko wax sikki sàkk ko ndax sëñ Tuubaa ay waxam ci xol rekk lay jóge waaye delluwaat ci xol sëñ Saaliw ko waxoon sëñ Saliou waxoon ne lépp lu ñu ne sëñ Tuubaa wax nga di ko sikki sàkk ca ko nettali la moo tax gis nga ay waxam dafa génn ne arsala rabbu naasi xayra naasi ila naasi wasalaam mooy boroom nit ñi moo yónni ki gën ci nit ñi waaye ci nit ñi la ko yónni yi na ngir mu indi mission kon loolu bokk na ci ay waxam moom Seexul Xadim radiyallahu anhu bokk ci ay waxam ba tey mu euh, moo waxoon ne daraje yi gën a kawe daraja ji gën a kawe ci yàlla ci jile jamono nit ki bu ko bëggee am na fexe dëkkal tawxiid ci xolam mbokk yi lan mooy dëkkal tawxiid ci sab xol maa ngi koy wax léegi nit ñi gëm nañ yàlla waaye wóolu ko ñoom jàpp nañ ne lépp lu am maanaam ci diw la bàyyi ko wala ci diw la bàyyi ko wala ci diw la bàyyi ko mbokk yi lépp lu am ci yàlla la bàyyi ko tabaraka wa taala yàlla mooy benn buur bi nga xam ne nit ki dafa war a dëkkal ci xolam tawxid nit ki am tawxid mooy day jël léppam bàyyi koog yàlla nga xam ne ab xolam du ci wéetal ku dul yàlla tabaraka wa taala looloo tax sëñ Tuubaa doon wax euh, ci xasidaam googu ñuy wax Matlabul Fawzayni lakinnama talassusul jawaarixi afdahumu li aqbaxi qawaaixi waaye fala tuwaaqishum bi ma laa yanqasuk wala humu habi lesi laa yanfauk ak fa innahum wa in asawka yaa ahad bayt woowu sax laa soxla woon fa innahum wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad nga xam ne kon mooy yàlla yotee wut ak tawxid dara jaam bi ak càgganteem wala pexem ceytaane mën naa tax mu mooy yàlla waaye taxul mu weddi yàlla mbokk yi mooy yàlla ak weddi yàlla aka ñoo soree moo tax Sëñ Tuubaa ne ko fa innahum wa in asawka fa innahum naka ñun wa in asawka donte mooy nañ la yaa ahad yow mi nga xam ne yaay benn buur bi li ghaflatin ngir ak càggante wallahi lam yushriku bika ahad mooy la taxul ñu bokkaale la yow yàlla waaye wa innahum abdaanuhum laa taqdiru waaye ñoom seeni yaram la taqdiru ala balaika li doxfin yasharu qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaaka min huna ila ila gada ci la indi lakinnama talassusul jawaarih nga xam ne daf ne ko yow yàlla donte mooy nañ la suñu càggante la waaye jotee wut ak nag di la ñuy dof ba di la bokkaale waaye nag ñun ñoom seeni yaram ñoom ñoom jullit ñi seeni yaram moo àttanut balaa yi nga xam ne moom lañ moom nga leen di teg wa innahum abdaanuhum laa taqdiru ala balaika ngir lan li doofin yadharu yow borom bi tabaraka wa taala yaa wax ci alquran ni allahu alladi xalaqakum min daaf summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafa wa shayba yaxluqu ma yasha yaa ñu bind ci doyadi ginnaaw bi nga abal ñu kàttan ba mu neex la nga nangu sa kàttan delloo ñu ñuy koy ñu ñu doyadi li doofin yadharu yow yàlla doyadi gën ñu bindee woon te di ñu ci delloowaat moo tax mënuñoo ànd mënuñoo àttan balaa yi nga xam ne moom nga ñuy teg waaye nag ñu de luñ na moy mooy mooy mooy mooy mooy ngir suñu càggante qulubuhum laysa tamilu abada seeni xol di mësta jéng jëm ila siwaaka min huna ila seeni xol di mësta jéng daj ci ñu jéem a jaamu ila siwaaka ku dul yow min huna ila gada moo xam adduna la moo xam alaxira yàlla yow rekk la ñuy yaakaar loolu mooy dëkkal tawxid ci sab xol nga xam ne foofu sëñ Tuubaa mi ngi fi doon ñaan borom bi tabaaraka wa taala mi ngi doon tinu jullit ñi ci maanaam matadi gu leen yàlla defal ba tax léeg-léeg ñuy juum waaye teewu tawxiid dëkk ci seenu xol moo tax mu wax ne daraja ji gën a kawe ca yàlla mooy fexe ba dëkkal tawxiid ci sa xol nga xam ne kon yii may wax nii muy moy yàlla ak njumte ak yu ko ndiru daa jotewut ak nag weddi yàlla <laughs> Sénégal nag Sénégal nag dañoo rom dañoo yomb ci kéefarloo dañoo yomb ak loo nit nit day wax dara rek ñu ne ko ñu ne ko ñu ne ko yé maanaam ñu yéefarloo ko nit day wax dara rek ci diggam ak borom bi tabaraka wa taala wala mu misaal dara wala mu wax ci sëriñam dara ñu ne ko yow kat lii ngay wax nii génn nga ci diine ji ndax ka daraja ji nga ko jox yàlla rek lañ ko war a jox mbokk yi ñaar yooyu soree lañ maanaam bokkaale yàlla lu ko gën a jafe mën naa ne xaw ko dafa jafe lool nag waaye nag dafa yomb lool dafa yomb ci ki xamut waaye dafa jafe it ci ki ko xam borom bi tabaraka wa taala kon moo tax Sëñ Tuubaa dëgg mi ngi yëkkati ko maanaam yàlla day yëkkati dëgg day yëkkati dëgg ci gën jaa kawey daraja ca ayliyin waaye nag borom bi tabaraka wa day suufeel ak neen ci gën jaa suufee daraka xam ngeen ne aljanna ay dara darajaat la waaye sawara ay daragaat la ay darakaat la aljanna ay darajaat la waaye sawara ay daragaat ay darakaat la ay darajaat mooy yi liy jëm kaw ay darakaat mooy liy gën jëm suuf aljanna ji gën a kawe mooy ji gën a neex waaye sawara ji gën a suufe mooy ji gën bett moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala yëkkati dëgg ci gën jaa kawee daraja waaye aw neen da koy suufeel ci gën jaa suufee daraka kon yooyu benn ay benn bennat la yoo xamante ni ci ndigal yi ci dénkaan yi nga xam ne sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, euh, andi woon na ko am na ci bisu aljuma yamook fukki fan ak juróom ci weeru safar ama jàkk sasi am na dénkaani bu mu dénkaani woon ci wàllu muñ ak yéene ju rafet ak soññee ci takkook julli mbooloo bis booba dafa dikk daal di ne nga ndax guddi googa wax nañu ne yooyu dafa bari woon lool mu moom sëñ nga xam ne daanaka yooyu bari na bay waay goo xam ne guddi googa sax nelaw maanaam nelaw dara xawoon naa jafe maanaam la ne mos dara ciy nelaw ca guddi googa xawoon naa jafe waaye Cheikhul Khadim radiallahu anhu dafa dikk daan ne bi mu bi mu jullisee fajar dafa wax ne bu ngeen xamoon li nekk ci matt matt yooyu yi kon da ngeen dana dana oyof too yu ci yéen ndax li ci bo te da boole kook sant yàlla maanaam bu ngeen xamoon li leen gaar biig muy matti matti yooyu ngeen di jàmbat su ngeen xamoon la leen di xaar ci diisaay kon lii dana oyof tooy ci yéen te da ngeen koy sante yàlla mooy kon jaam bi ndekete ay yoo yoo yoo yu koy màtt mu di ko jàmbat ba tee koo nelaw soo xalaatoon responsabilité bi suñu borom teg ci moom nga xam ne guddi gi du tala nelaw bay lijjanti ay yoo yu koy màtt ak yu demee noonu allahu akbar su boobaa kon sant yàlla rekk lay def te xam ne loola ko yooya di màtt mu néew mu bari ak dolli la Cheikh Salih Mbacké radiallahu anhu wax nañu ne léeg-léeg daana toog nga gis yooyu sam ko waaye rus na rus na di leen dàq ndax kat nee ñoom loolu ñuy mos ci moom moom mooy seenu dund te bu leen ko xañee mën naa am duñ ko amewaat feneen mbokk yi loolu mooy tawxiid mooy ki gis aw yoo mu di ko mat mu mën a bàyyi yooyu mu jël wër sëgam ci moom ndax nee na bu ko bàyyee bu ko dàqee wala mu jéem koo rey ak dundam foofa yam te bu ko dàqee it mën naa am dootul gisati ku ko ko nangul mu mos ci dere mu mos dara ci moom mbokk yi loolu mooy tawxid loolu mooy nangoo ànd ak yàlla borom bi tabaraka wa taala loolu mooy waxi loolu mooy tawxid nga xam ne sëñ Tuubaa mi ngi doon jàngale sax li ci solo mooy lim doon jàngale sax mooy que ni wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda suñ borom du wax bu ne xëy na taaqiq lañ koy jàppee suñ borom tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañuy julli guddi suñu borom dana leen yëkkatil ay maqaama waaye maqaama mahmuda lay doon ay maqaama yoo xam ne yu ñu sant fa borom bi tabaraka wa taala lay doon kon ki tala ki nga xam ne guddi gi tëlu dudul naafila kooka bu ko ay yoo di mat war na koo mën muñ te mbokk yi loolu di bunt bu am solo am solo am solo muy xiyaamul layl ñun nag daa mel ni ñu ci ñun daanaka weeru koor rek lañ koy def donte def ko ci weeru koor baax na waaye nag manees na koo defee ci lu dul weeru koor ndax dafa waxoon ne moom Cheikhul Khadim radiallahu anhu xam ngeen ne boo demee ci minanul baaxil Khadim Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi ciy nettali ne moom Cheikhul Khadim radiallahu anhu waxoon na ne ñoom bi ñuy doo bi ñuy toll ci raw bi ñuy toll ci war fasu ga tax nga xam ne seeni at bareegul soxna jaara bokk na ci yim leen daan déggale mooy bokk na ci baaxu bokk na ci aaday gaa yu baax yi di taxaw guddi nga xam ne Cheikhul Khadim moom bi mu daan xaar ba guddi jot mu dem ba ca àll ba fanaane faa taxaw nga xam ne boobu xamul ne sax taxaw taxaw maanaam xiyaamul layli ay ay rakkaa lay doon xamu ko woon moom maanaam taxaw xiyaam giñ leen wax muy taxaw guddi giñ leen wax moo tax moom daana dem ca àll ba fanaane fa taxaw bu xëyee bu fajar jotee mu ñëw julli fajar loolu mbokk yi éducation la bu am solo boo xam ne a soxna jaara radiallahu anha moom nii la doon yaree ak njabootam nga xam ne nettali nañ ne ñaari doomam yi nga xam ne ay mag lañ njaboot nañ dem nañ ba njaboot fi am fii doom muy ku mel ni Seexul Xadiim ak mam borom Saam ñoom bi ñuy tàmm taxaw guddi booba ñi ngi toll ci raw liñ daan war fasu ga tax mooy mëtagu ñoo dem daara kon loolu mbokk yi di dénkaan yu am solo am solo am solo yoo xam ne Seexul Xadiim radiyallahu anhu dénkaan wu koon mas bisu bu àjjuma it fukki fan ak ñett ci weeru Shaabaan ama wal sasin waxoon na am na am bu mu joxe woon bu am solo am solo am solo dénkaan bi lii la waxoon daf ne dikru masaawil fujjaari bila mujahada danas wa dikru masaawil awraar bihi bila bila nasiha najas bila nasiha najas wa dikru masaawil abrar bila nasiha najas mbokk yi xool leen tënk bu am solo boobu dafa wax ne tudd kàccooru gaa yi nga xam ne dañuy mooy yàlla te yow defoo ci benn effort mooy da toog rek naan diw ñoom ni ñu bonee li ñuy def nangam ak nangam te yow ci sa bopp jéemoo koo dindi ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam digle aleyhi salaam lu mu waxoon mooy ku gis ci yéen loo xam ne ab safaan la fal yu xayyirhu na ko dindi la waxoon man ara minkum munkaran fal yu xayyirhu ci nan fa bi fa bi lisaanihi maanaam so yonent bi aleyhi salaatu wa salaam li la waxoon mooy fa bi yeddi bi yeddi hii mooy na ko dindee ci sa loxo soo ko mënta dindi ci sa loxo fabi bi lisaani hii na nga ko weejee ba ñëpp yëg ko soo ko mënu na ko yéene fa bi xal bi hii mooy na foo toll dee ko métti lu ci sab xol waaye yow nag foo toll da nga naan diw ñoom wala diw li ñuy def ni baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul te eggee woo leen ko am nga moyen man ko weeje ci média bi defoo ko am nga moyen man koo jëflante ñoom waaye defoo ko fa nga toog continue di ko tudd di wax sëñ Tuubaa nee na danas maanaam ay taqaar rek ay taq-taq rek la lay yokk ndax yow mi toog di tudd seen mbon te moo ci dara ay bàkkaar la lay la lay jural mooy yow fi nga toog di ko tudd te jéemoo ca dara doo ci am yàlla waaye bàkkaar sax la lay mujj dem ndax yow yaa ngi toog foo tollu di leen tudd te foo ci dara waaye nag tudd mbaaxu tudd ñaaw téefu gaa yu baax yi tudd ñaawteefu gaa yu baax yi ci lu dul ak laabire it ak cobe la loolu it mooy lan wal imsaaku amma shajara baynahum mooy gaa yu baax yi des fois am yu jaar seen diggante yoo xamante ni am na ci sax li ci ëpp boroom xam-xam yi dañoo wax ne ñun dañ cee war a téye suñu làmmiñ al imsaak amma shajara baynahum mooy yi jaaroon seen diggante am na ci yoo xam ne ñun sax yellut wala boog doonul ay teggin ci ñun ñu di ko nettali waaye yéen ca mën a tudd kas néew nañ ko tudd ngir laa biire ko nit wala boog ngir joxe ca ay leçon waaye buñ ko tudd rek ngir dañ ko war a nettali di ko nettali léeg-léeg na nga gis ci télé bi benn borom xam-xam wala ci rajo yi muy tudd ci saxaaba yi loo xam ne wal hiyaasu billahi taala kenn mënu koo dikk ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax léeg-léeg nga dégg ku ci ñàkki teggin gën yi façon ñàkki goo xam ne doo xam moom lu tax mu di ko wax sëñ Tuubaa nee na loolu ak sobe dong la foo fekk ku koy def mooy gën a gàttu fan ci maasam moo cay gën a néew barke najas ak sobe ak sobe dong ak taq dong la leen la ko yokk kon mbokk yi gaa yu baax yi lépp loo dégg ci ñoom ci lu baax luñ mën a nettali manis na ko yéeje ba ñëpp yëg ko waaye bu dee ab safaan nit mbokk yi nañ ko nañ ko gaaral waaye ci nan nañ koy gaarale mooy nañ ki ñu ko war a laabiire nañ ko ko laabiire ki ñu ko war a décortiquer nañ ko ko décortiquer ba mu leer ci boppam waaye nag buñ ca paree nañ ca dolliku te pare ca waaye dégg nga ab saxaaba sàngam defoon na nangam rek ba bu yàggul rek am na ci xew-xew yu amoon Sénégal nga dégg ñu coow naan sayidatuna Aïcha tiwmaaloon nañ ko lu mel noonu nangam ak nangam mbokk yi sayidatuna Aïcha soxna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam la alayhi salaatu wasalaam moo gën ku dul moom ay soxnaam ñoo gën ci soxna yi ay doomam ñoo gën ci doom yi ay saxaabaam ñoo gën ci nit ñi alayhi salaatu wasalaam daraam du daray kenn kon lu jaar ci moom dañuy jàpp ne suñu borom tabaraka wa moo ñu bëgg a jàngal ñun jullit ñi moo tax mu xewal lu mel noonu seen diggante léeg-léeg sax nga dégg ñu ne Seydina Ali rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam la Aïsa soxnaam la ñoom ñaar jot nañoo xare mbokk yi al imsaak amma shajara baynahum lii la ñu borom yi wa wajaba al imsaaku amma sajara kon war na ci ñun li nga xam ne moo xewoon su diggante saxaaba yi wala gaa yu baax yi am na ci yoo xam ne ñun suñ yoon bu mu ci nekk nañ xool liñ ci mën a roy ñu roy ko liñ ci mën a romb ñu romb ko kon diine ji yii rekk ci mën a nekk mooy roy ak romb yi nga mën a roy royal li nga mënta roy rombal waaye nag critique am na ci critique yoo xam ne yow yàlla wàccewul lislaam ci yow yàlla yónniwu la ci nit yi alayhi salaam wasalaam la yàlla wàcc ci moom lislaam moom la yàlla yónni kon lum la jox wa ma aataakum rasulu fa quduuh wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jox jël leen loolu la ñu yàlla wax lépp lu leen tere bàyyi leen lu mu leen jox jël leen lu baax la lu leen tere bàyyi leen kon nañ tàmbali ci yonent bi aleyhi salaatu yem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te xam ne léppam yiw la kon xam naa ne foofu la ñuy tënkee jataay bi ngir xatug waxtu wi waaye seen émission keppaaru mag ñi la woon ngeen di ko topp ci seen télé Rewmi TV ci canal bi 37 euh, wala mën koo topp ci Rewmi FM 97.5 euh, lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadik doomu aadama la seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen àndaloon ci kàddu gi Alhaaji Malick fay mooy ki nga xam ne moo ñu yoraloon wàllu xarala gi ñoo ngi ziyaare mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp émission bi nag ci àdduna bi yëpp nag rawatina waa Italie waa Espagne waa diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp bàyyiwuñ kenn waaye waa Touba Saamu sëñ Baara Xuréja nga xam ne ñun mooy suñu wàccuwaay ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal di ñaan xalifa bu tedd ba fa nekk muy Serigne Cheikh Mbacke ñu ngi ñaan yàlla yàggal ko tawéeral ko muy Serigne Cheikh tedd ak mboolem ay rakam ak mboolem jabootuk sëñ Baara Xurija mboolem jabootuk Mamour Diarra borom saam mboolem jullit yi nga xam ne ñi ngi diglu suñu kaddu di safoo suñuy kàddu waaye di safoo yi tele bi di ko topp ci mboolem ay programme am lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadik doomu aadama la in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya ila billah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Souleymane bisarfi almasiyat kayma taqud simam lirrasiyat adan idha izdada qalbi uzn bahjatiha ووجعت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات